waaw ah, dëgg la sant yàlla rek sant yàlla ba léegi moom ñoo ngi dundee yaakaar rek client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk wante daal daaw daal heure bi fekk commencé ñoo gis suñu bopp wante ren daal xaw na xaw naa yéex tuuti wante ñun ba léegi ñoo ngi dundee yaakaar rek xam nañ ne moom fii moom incha lu mu tuuti tuuti dina am lu leen fi luñ fi for bu soobee yàlla ñoo ngi dundee yaakaar client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk wante daal gis guñ suñu bokk extérieur yi ñu doon jog extérieur ñun moom gis guñ leen wante moom sant yàlla ñoo ngi ñëw ndànk-ndànk lii moo suñu métier duñ ko fi jaayee moom la ñuy jaay bu ñu ñibbee tamit suñ fuñ dëkk moom la jaay prix bi moom fixé la rek amul yokk amul wàññi ñu nag ñu nag clients yi xamante nañu ñu jóge ba bitim réew dañuy wax dañuy jokkoo toujours ci whatsapp beeg waaw ñun xamante nañ prix yi prix fixé la rek ak prix yi amul amul événement ñu yokk ko loolu événement ñu wàññi ko prix bi même prix la rek ñu nag ñoom xamante nañ bu baax moom noonu la rek. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. merci. madame bonsoir. Comment Je viens de venir Madina Ignace. Alhamdulillah. Maintenant, je viens d'arriver. Maintenant, les marchés là. Alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Donc, donc, les clients là, oui, aujourd'hui de ici, les Maintenant, la banane, que c'est moins cher, il que c'est cher. Mon pays, c'est Niger. Niger. Oui. Maintenant, Alhamdulillah, Dakar, là, c'est bon. Ici, Nias là, c'est bon. Si là, il y a l'eau, il y a les manger, Alhamdulillah.